وفي الحمد لله صلى الله وسلم على نبي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نجي ورجلتي فكيلو آية بأكبن في سورة النساء سني برم دي وخيني yuusikum allahu fi awlaadikum ñu ngi koy sant jalla waala ci lim ñu wërsëgal ñu dajawaat ci ab néegam li ñu tax a toog mooy jàng ab téeréem loolu it ab yonentam digaate ca lu màgg lool ci ay pay ñu ñaan suñu borom yàlla yal na yàlla jagleel ñu ko ñu xam ne it ñu ngi ciy ànd ak ay nit ñoo xam ni yàlla xam fu ñu nekk ci kaw suuf ñoo ñëpp it bokk na ñu yonent bi alei salaam doon bégal ñu seen xol aju ca jàkka ya loole sawaun ci julli yi la waaye bokk na ci it xam-xam ya nga xam ne dana fay balle ñu ngi ñaan ñook ñi leen koy jottali yépp yal na yàlla boole ñu ci ngërëmam tey jii mooy ñaareelu fan ci weeru Shaaban suñu maram yi di ko suñu suñu suñu nuñ koy mbokk yi xam nañ ko wax suñu maam yi di ko tuddee baraxlu muy weer wi nga xam ne moo jiitu shahru Ramadan ñu jàppe ko naka mag ñu jëkk ñu doon jàppee mooy weeru entraînement waajal sa bopp ci gën a fagaru ci moytu loo xam ne ni jaaduwul waaye góorgóorlu ci gën a yokk say jaamu yàlla ba bu weeru koor ñëwee fekk la ci loo xam ne nii doo ca ñàkk benn bis kon mi ngi noonu mooy tombé kon le 22 février ci 2023 incha allah su dee Cheikh Ousmane pare na mu jëlal ñu suñu bind bu njëkk.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم suñu boroom jalla wa ala mu ne yuusikum allahu mi ngi leen di dénk kii di yàlla fii awlaadikum ci seen doom yi góor ak jigéen li zakari mislu xazil unsayayni góor gu nekk nañ ko jox cëru lu tolloog cëru ñaari jigéen فإن كن نساء فوق اثنتين su dee dañoo nekk ñaar yu nekk su dee dañu nekk ay jigéen yu nekk ca kaw ñaar fa lahunna thulutha ma tarak dana leen ñeel ñaareelu ñett ca alal ja mi ngi noonu wa in kaanat waaxida su dee benn doom bu jigéen rek la bàyyi fa laha nisf dana ko ñeel genn wàllu alal ja wali abawayhi dana ñeel ñaari way jur ya li kulli waxidin minhuma sudus képp kenn ca ñoom dana ko ñeel juróom benneelu alal ja doom ja bàyyi mimma taraka ca la nga xam ne ba na ko in kaana lahu walad su dee seen doom jooju ba muy faatu daa bàyyi doom moom ci boppam fa in lam yakun lahu walad su dee seen doom jooju ba muy gaañu amul doom wa warisahu abawaahu nga xam ne ña koy donn mooy ñaari waajur yooyee fa li ummihi sulus nañ jël benn ca ñett ca alal ja muy ceer ñu jox ko la nga xam ne mooy yaay ja fa in kaana lahu ixwa waaye jamono jooju it waaju amul doom waaye bàyyi na ay frère mooy ñaar ñu bokkal fa li ummihi sudus kon nañ wàññi cëru yaay jox ko benn ci juróom benn muy un sixième min baadi wasiyatin yusi biha aw dayn gannaaw dénkaane nag ba nga xam ne dénkaane woon nañ ko wala bor bu ñuy fayal ka nga xam ne daa faatu abaaukum wa abnaaukum seen wayjur yi ak seen doom yi laa tadruuna ayuhum aqrabu lakum nafa xamu leen ana kan ci ñoom moo gën a jege ñel leen ca njëriñ faridatan min allah lii day farata la bu yàlla farataal mu bawoo ca yàlla inna allaha kaana aliman xakima xam leen nag ne yàlla aji xam la yàlla aji xereñele mi ngi noonu mbokk kon mi ngi ne dal bunt bi gën a jafe ci téere bu yàlla bi moo gën a jafe it ci fiq bokk na ci li jullit ñi jëkk a ñàkk mooy li ñuy tuddee ilmul faraid li am ci wàllu miras li ñu ciy jëkke wax mooy falilahi alhamdu du lu ñuy jëfee bés bu nekk nit ki mën ngaa dund ay ati ati at doo gis ku ji miras awalan fokk ñu jëkk a xam li suñu borom ne yusikumullah yàlla ngi leen di dénk kan mooy allah allah mooy ki ñuy jaamu allah mooy ki moom lépp kon yàlla mi nga xam ne moo moomoon bàyyi moomoon alal jam ko jox loolu borom bi di wax neen wa aatuhum min maalillahi lazi aataakum jox leen leen alal ji nga xam ne yàlla moo leen ko jox allazi jaalakum mustaxlafina fiihi moo leen ci wuutal kon alal ji alali yàlla la bàyyi jaamub yàlla la yàlla jël na ab jaamam alal ji mu ne dese leen ko nii bari na ay problème yu bari yu am ci wàllu miiras wallahi tere wax naa ci lu jógee quinze minutes de téléphone yoo xam ne ni nit ñi dañuy fàtte ne alal gi seet bàyyi moomu ko alal ji alal li yàlla la yàlla mi moomoon bàyyi moom alal ji yóbbu na bàyyi alal ji nag mu ne sama alal la defee leen ko nii su ko defee loolu bu ko ñëpp xamoon dana woyof suñu borom mu ne su dee damaa jël sab jaam alal jëm bàyyi ñii de ay doomam ngàllawaay nañ jël góor gu ne ñu jox ko ñaari cëri jigéen suñu borom ngir fonk jigéen xam ne am na cër bu doon nit a wax bu doon nit may wax da naan na góor jël benn jigéen jël genn wàll mais bañ a tudd genn wàll gi sax moo tax borom bi mu ne xaz cër mi nga noonu cër boobee nga xam ne jigéen da koy am nañ ko jox góor ñaar kon muy wane ne jigéen am na cër ci miraasu bàyyam loolu bokk na li gën a déranger intellectuel yi mooy pourquoi góor ak jigéen seen bàyyi deen yemalewuñu leen waaye mbokk yàlla yemalewul góor ak jigéen nañu xool rek tey jii benn frère ak benn sœur yi seen bàyyi dee na ñu ne lan la bàyyi ñu naa moom kat daa bàyyi masalan six cent mille ñu ne soxna si kon jëlal deux cent mille yow ko góor ki jëlal quatre cent mille ñu ne loolu injustice la waa léegi tey bu ñu jógoon dem di takki jabar ku góor ki di moom lañ koy laaj mooy joxe cana ku jigéen ki moom dañ koy jox cana ah kay ñaareel bi itamit même bu dee ne du ko wàllu sëy sax sœur boobu nga xam ne bàyyam dafa dee frère boobu la ñuy wax yow yaa koy jël en charge yooyu yëpp dafay am mbir yoo xam ne intellectuel dulit bu cay nekk di ca critiquer di ca wax wallahi mooy ñàkk a xam rek li ñu ubbee tafsir bi mooy xam ne alal ji alali yàlla la yàlla moom lu ko neex kii moom alalam bu ko neexee demal joxal ma ma sàmb mille joxal ma kii un million yoonu kenn néew ci ndax moo ko moom borom boobu subhanahu wa taala ne kon su dee ne ñi nga xam ne da leen a bàyyi dañoo doon ay jigéeni kese kon alal ji nañ ko xaaj ñetti xaaj bàyyi bàyyi na trois millions ay doomi jigéen rek la bàyyi yoo xam ne li borom bi wax fawqas na tey ni mooy ñu tege ci ñaar jëm kaw da ngay gis suñu borom ma ngay wax ca bopp saar ba ci beneen kalaala ba fa in kaanat asnatayni fa lahu fa lahumma sulusaani mimma tarak su dee ñaar lañu dañuy jël deux tiers ya ndegam ñaari sœur bu ñu weesee dañuy jël deux tiers waxuma ñaari doomi jigéen kon fawqa asnatayni kenn du ko wax buñ matee ñett la suñ matee ñaar rek alal ji dañ koy xaaj ñetti xaaj ñaari xaaj doom yi jigéen yi ñoom ñoo ko moom ñu ñëw nag ci way jur yi benn waaye mi ngi faatu bàyyi na ñaari way juram suñu borom mu ne bu dee way jur yi rek ñoo koy donn ngalla waay alal ja nañ ko xaaj ñetti xaaj ñu jox yaay benn xaaj yeneen ñaari xaaj yi bàyyi jël ko loolu mooy bu dee ne waajur yi rek ñoo koy donn amma su doonte ne ne waa ji bàyyi na ay frère frère yooyu bu fa seen bàyyi nekkul woon ñoom dañuy donn léegi nag ñi ngi fi ak seen bàyyi suñu borom mu ne kon yow yaay keer bi ñu la waroon a jox dañ koy xaaj ci digg bi nga dese sudus bi un sixième ñu dollil ko bàyyi su ko defee frère yooyu moom du ñu doon waaye daañ xay xañ yaay un sixième bennam lu tax ndax dañu jàpp ne bàyyi mooy seen kilifa te alal jooju dellu ci bàyyi bu bàyyi dee ñoom frère yooyu dañ koy jëlaat am déet loolu kon mooy atte bi yàlla subhanahu wa taala atte mooy kon bu dee bàyyi na ñaar ñu bokkal na doon ñooñu dañoo bokk ndey wala dañoo bokk bàyyi wala dañoo bokk dañu doon ñaar ñu góor wala dañoo doon góor ak jigéen yépp képp koo xam ne dafa dee te am ñaar ñu mu bokkal ndey wala bàyyi bu ñuy miraas fekk bàyyiwul njaboot su boobaa yaay un sixième day jël ñooñ buñ fa nekkul woon nag yaay day jël teeru alal ja loolu mooy li borom di wax ixwatun borom bi nag mu ne lii lépp na doon min baadi wasiyatin yusi biha aw dayn gannaaw dénkaane bu waajo di dénkaane wala bor buñ koy fayal mbokk awalan mooy wasiya suñu borom yàlla ci mbaaxam ak xam doomu aadama ni mu bëggee alal moo tax mu may ñu suñu ceeru alal ñu mën cee def wasiya mooy nga ne bis bu ma deeyee sama alal nañ ci jël defal ma ci nangam te jàkka ja joxal ma ci bàyyi diw nangam joxal ma ci nijaay diw nangam mooy ñooñu nga xam ne duñ la donn ci jegeñaale ci ay masakin ci loo xam ne ne projet l'islam la yàlla may na la alal ji nga yor nga koy jëfandikoo nu mu la neexee waaye am nga fu bind testament testament boobi bis boo deeyee bu ñu xoolee ne rombul ceeru alal loolu dañ koy wéyal te it day nekk tuyaaba joo xam ne dalay fekk si suñu borom jiital na ko ci bor li ci borom xam-xam yi wax mooy lan mooy doom yi daañu sawar lool xam ne seen bàyyi dañ ko war a fayal ay bor amma alal joo xam ne da koy maye rek léeg-léeg seen xol da ciy ñagg-ñagg moo tax suñu borom jiital ko waaye bu dee ci pratique bor la ñuy jiital ci ci testament waa ji bu dee woon tey la ñuy jëkk a xool ci alalam mooy nuñ ci jële luñ ko defere pour denc ko gannaaw ba dañuy xool la nga xam ne mooy bor ya muy bàyyi yooyu la ñuy jëkk lijjanti bala ñoo lijjanti testament bala ñoo lijjanti leneen lu muy doon te loolu it di léeg-léeg nga dégg ñu naan diw waaw wax seen bàyyi nañ ko miraas ndax buñ ko miraasul du tàlli mbokk ñàkk miraas ni teewu koo tàlli xam nga luy tee tàlli mooy mu bàyyi ay bor te fayu leen ko loolu moom ñu bàyyi ci xel bu baax loolu lu dangereux la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa ne def ba jamono neexagut buñ ko indilee ab néew mu ne ndax bàyyi na bor ñu ne ko waaw ndax bàyyi na lu mu ko fayee ñu ne waaw mu jullee ko ñu indil ko néew ndax bàyyi na bor benn waa ñu la ah bàyyi na bor de bàyyi na ñaari dinaar ñaari dinaar ah mu ne ndax bàyyi na lu mu ko fayee ñu ne déedéet mu ne kon jullee leen ko gis ngeen mu ne kon jullee leen ko ba abi qatada al ansari mu ne ko yum yàlla yónni man gàddu naa ñaari dinaar yi mu ne ko ah néew bi mucc na ci mu ne waaw yonent bi alei salaam doo koo jullee looloo tax ba nit ki bu deeyee la ñu war a jëkk lijjanti mooy lijjanti ay borom lañ ca mën a fay ñu fay ko lañ ca mën ta fay ñu gàdd ko garantil borom bor yooyee ngiree loolu dana ko muccal ndax yonente bi alei salaam loo xam ne xataada bu dajeeg moom ne ko ah noo mujjeeg dinaar ya ci gàttal mu ne ko fay naa ko mu ne ko ah kon de sa waa ji tey sa waa ji léegi moom am na am na ak dal kon bor la ñuy jëkkee bu alal di yemoon ca bor ya dañuy xotti wasiya ya doom ya duñu donn dara waa ji nga xam ne nii amoon na boru dix millions bi mu faatoo ñu xool li mu dajale lépp lépp li mu bàyyi lépp di dix millions dix millions yëpp dañu koy fayee bor doom duñ donn dara doom balaa donn borom mu ne min baadi wasiyatin aw dayn te wasiyit du nekk lu dul baad dayn loolee kon di mbir boo xam ne dañ ko war a bàyyi xel bu baax suñu borom yàlla nag gis nañu ne lii mu wax léegi-léeg am na ñoo xam ne bëggawuñ ko noonu mooy suñu sañoon seen alal seen doom rek a yor seen bàyyi vraiment duñ ko jox alal ji am ñoo xam ne suñu sañoon seen doom duñ denc duñ duñ jël seen alal seen bàyyi seen bàyyi moo koy jël ñii seen yaay borom boobu nag subhanahu wa taala ne ay yéen samay jaam ñii di seeni wayjur ak seeni doom xamu leen kan moo leen ci ëppal njëriñ te mooy doomu aadama bi yow bis boo deeyee gis nga doom yi nga xam ne ñoo la tee nelaw am na ñoo xam ne keroog bañ la suulee yoof keroog lañ la fàtte gis nga bàyyi moom ndeysaan fu mu toll mag lay ñaanal tonte ne mën na am contraire bi ci ci ci ci waajur yi lu dul nag ne mbokk li ñuy wax ci tafsir bi xam leen ne ab tënk la mais doo tafsir ba mu yeyoo ndax am na beneen dars yoo xam ne day jaar day jaar fii wala ngeen mën koo dégg ci yeneen ñooy jàngale miraas falilahi alhamdu ñu ngi topp téere bu ñuy wax minhajul muslim lay fee ba miraas lay jàngale li ñuy wax fii ci doom li borom bi subhanahu wa taala di wax doom fii ki dee ci bàyyiwul doom bokk na ci doom doom la doom bu góor yi ya nga xam ne da nga koo am doom la ñoo ñëpp bu ñu amoon masal na kii dee na amul amoon na doom doom ba gaañu na waaye bàyyi na fi ab sët bu góor du tey yaaja sixième lay jël muy mbir yoo xam ne dafa xaw a compliqué loolu borom bi waxit abaakum da ngay gis ne léeg-léeg maam dana ñëw taxaw place su baay kon suñuy def tafsir bi dañ la koy wax ngiree yow nga am ci aperçu am ci ab gisin loolu dana tax ba ëllëg boo déggee ay yenn erreur yi man ko rectifier da nga am it fooy jaar ba mën a am loo sukkandikoo ba laaj ndax mbir boo xam ne boo ko xamul duñ la ko buñ la tey Cheikh Ousmane posé waa ji ay question sur l'informatique su dee xamu ci informatique dara doo ci mën a posé question amaa nag boo amee base bi dana la permettre bu ëllëg si biir la nga xam ne lënt na la nga mën koo laaj borom boobu nag subhanahu wa taala ni xam leen ni seen doom yi ak seen waajur yi xamu leen ku leen ci ëppal njëriñ loolu it dana doon mbir boo xam ne toujours ñu koy wax mbokk njaboot da ngay gis ne am chinois yi am na lépp bu ñuy lépp ca langue yépp a ko xam mooy ki mujj a judd day mën na gën a barkeel ca la nga xam ne mooy famille bi su ko defee yéen nit njaboot gi xamoo ban ban doom moo baax yeneen yeneen ci yàlla yusuf alayhi salatu wasalaam suñu borom wone ne na mooy fukkeelu doom ak góor benn bu yeneen ci yàlla yànqu et pourtant yàlla day bi muy indi xéewalu njaboot gi fukkeelu doom baag benn la ko commencé la ca ca la ko jaarale looloo tax laa tadruuna ayyuhum aqrabu lakum nafa doom bu juddu ngal la waay na ngeen ko bëgg teeru ko teeral ko ca xamoo lan la lay indil benn soxla bi may wax kër bu ma ëmbee sama ñeenteelu doom wax ko sama sama sama borom kër daa toog di jooy yaa ngi dégg mbokk loolu loolu loolu musiba mënta passé loolu xamoo ban doom la yàlla lay barkeel gannaaw ba it góor ak jigéen la cet dogay def bañ doom bu jigéen la wallahi sa doom yu góor yi ak doom bu jigéen yi kan moo la ci ëppal njëriñ wallahi xamoo ko walaay xamoo ko yaakaar naa saa leen nettali fi ay yoon suñu benn mbokk oustaz Dame Gueye da daan ànd ak ñun ci jàkka ji rahimahullah faatu na keroog bañ koy labatal soxna maa ngi ànd ak Cheikh Ibrahim Khalil Lo hafizahullah ñu dem ci góor gi góor gi mu ne mu mu naan ma mu ne ñun ah waaye man damaa am ay doomi góor laa taawloo ma ne yàlla alhamdulilah jigéen daa compliqué may may ma góor rek waaye yàlla may ma doomi jigéen waaye maa ngi leen di seedeel na sama doomi jigéen ñii njëriñ biñ ma amal sama doomi góor ñi defaluñ ma ko laa tadruun ayuhum aqrabu lakum nafa bëggal ñëpp fonkal ñëpp yal na yàlla barkeel ñu njaboot gi yëpp li ngi noonu Cheikh Ousmane
ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توفون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أم امرأة وله أخ أو أخت وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حكيم بارك الله فيكم suñu boroom jalla wa ala mu ne walakum nisfu ma taraka azwaajukum eyeen góor ñi dana leen ñeel genn wàllu la seen soxna ya bàyyi in lam yakun lahunna walad bu dee bi ñuy faatu bàyyiwuñu benn doom fa in kaana lahunna walad su dee ne nag ñeel na leen benn doom falakumu rubu mimma tarakna kon dana leen ñeel lii di benn ci ñeenteel muy kaar ca la nga xam ne bàyyi nañ ko min baadi wasiyatin yuusina biha aw dayn gannaaw dénkaane boo xam ne nii soxna sa dénkaane woon na ko ca alalam walla bor boo xam ne soxna sa gàddu woon na ko soxna yooyu ñoom tamit bis bu ngeen faatoo walahunna rubu mimma taraktum dana leen ñeel benn ci ñeent ca la ngeen bàyyi muy le quart in lam yakun lakum walad su dee bi ngeen di dee bàyyiwu leen doom fa in kaana lakum walad su dee bi ngeen di dee nag da ngeen a bàyyi doom fa lahunna sumuna mimma taraktum kon dana leen ñeel benn ci juróom ñett ca la nga xam ne bàyyi nañu ko muy un huitième min baadi wasiyatin tuusuuna biha aw dayn gannaaw dénkaane boo xam ne dénkaane ngeen ko wala bor boo xam ne bàyyi ngeen ko wa in kaana rajulun yuurasu kalaala su dee ne benn góor a ngi nii ñu koy donn mu nekk ab càppaculi koo xam ne bàyyiwul ay waajur bàyyiwul ay doom aw imraa wala jigéen bu faatu bàyyiwul ay waajur bàyyiwul ay doom wala huwa axun aw uxt waaye ñel na ko benn frère wala benn sœur benn càmmiñam bu góor wala ku jigéen fa li kulli waxidin minhuma sudus kon képp kenn ci ñooñu nañ ko jox benn ci juróom benn lu alal di muy un sixième fa in kaanu aksara min dalik su dee ne nag ëpp nañu ñaar yooyu fahum shurakaa'u fi sulus kon ñoom ñépp du tee nañu bokk la nga xam ne mooy benn ca ñetteelu alal ja muy un tiers min baadi wasiyatin yuusa biha aw dayn gannaaw dénkaane boo xam ne dénkaane nañ ko wala bor buñ koy fayal gayra mu door mu ñàkk ànd ak lor kenn nag ku mën a doon wasiyatan min allah lii day dénkaane la bu bawoo ca yàlla wallahu alimun halim yàlla day ko xam la ca it ko lewet la mi ngi noonu jalla wa ala mbokk kon suñu boroom day ñëw ci gannaaw ba mu waxee waajur yi la ñuy am ca seeni doom wax doom li muy am ci waajur mu ñëw nag ci way dencante yi mu ne bu dee ne jigéen dafa faatu te bi muy faatu bàyyiwul doom su boobaa borom kër ba mu doon sëyal moom mooy jël genn wàllu alalam na doon mas nañoo daje ci lalam musuñoo daje ci lal na doon da koo fase ci idda ba jeexagul yi yépp du tey way dencante yi doon moo doo nga Amérique may nañ ko soxna faatu musul gisante ak faatu bis bu dee faatu day donn bu faatu dee moom day donn kii fase muy talaxu rajiya ca idda ba jeexagul du tey day donn kon day jël génn wàllu alal ji muy am nag ay muskila yoo xam ne nettali nañ ma ci ñaar mooy li ñuy tuddee wàllu takkoo dañuy gis koo xam ne nii jigéen la bu amul doom léegi nag am kër këru ndakaaru yàlla dogal mu faatu fekk suñ tam ne woon na takkoog moom ñu ne génn wàllu alal jum lañ koy jox nettali nañ ma ci ñaar yoo xam ne nii fañ ñu dañoo taxaw ne loolu du ci dal waaye it loolu mbokk mooy ñàkk fàttaliku lañu ubbee woon tafsir bi ba fàttewu leen ko mooy alal ji du alalu ki faatu alali alali yàlla la yàlla moo moom sama alal joxal leen ma suñ taam waaye jox leen suñ taam rek bu dee cent millions seen yu niw ci am déet doonte ne fitna la ndax ki am kër Dakar kër gi ñu estimé ko cent millions kii ñu may ko ab takko ñaar bërki dem moo jaay ñu ne cinquante millions da koy jël xam nga loolu ragal yàlla mooy tax nga nangu ko waaye nag moomu moomu leen ko yàllaa ko moom kon nañ ko jox génnoo la alal ci amma nag bu dee soxna si bi muy bu dee ne soxna si bi muy faatu yow moom daa fekkoon am na doom jëkkër ji la ko amal wala keneen ku mu ko mën a amal am na doom su boobaa dañuy gis ni suñu borom mu ne kon léegi jëlal kaaru alal ci dañ ko xaaj ñeenti xaaj yéen benn ci ñeenteel bi ngeen di jël gannaaw ba soxna si joxee testament wala bor yuñ koy fayal lii mbokk lum ñuy jàngal ci lislaam jigéen am na droit am alali boppam yoonu bàyyi néewu ci yoonu jëkkër néewu ci yoonu doom nekku ci alalu boppam la moo ko moom lu ko neex la koy jëfandikoo su ko neexee sama alal jii ne bis bu ma dee nañ ma ci defal nangam nañ ma ci defal nangam islaamin may na jigéen mu lépp ay bor ngiree jëfandikoo ko ci loo xamee ne nii da koy jëriñ te it nañu xam ne mbokk góor ak jigéen a ci yem jullit du jóg di lépp lu dul ci nécessité la kay tey nelaw mooy nu may def ba fay bor bi jullit du lépp mukk cay teexaan rawatina yéen jeunes intellectuels yi damay lépp pour am oto damay lépp pour am kër même pas trente ans nga bëgg am kër bëgg am oto bëgg am lu nekk crédit bancaire bu dul bu lay topp pendant vingt cinq ans loolee mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax ay musiba rek la lay jural maa ngi wax ak benn banquier loo xam ne yàggul dara mu may wax ay problème mu prêt di wax ni ñii leb quarante quarante millions ci banque prêt boo xam ne dana def vingt cinq ans nee na à la fin dañ fay plus de cent millions loolu mbokk foo koy fay loolu ngalawaay bu leen ci dugg fi sa doole toll dundal comme ça fee yàlla yemale sa doole bu dugg mukk ci loo xam ne nii da lay jural problème sa diggante ak sa borom kon jigéen am na droit ci loolu ñu fayal lañ ñuy jëkk a def mooy fayal ko ay borom rawatina nag bi ñu yàlla na to ay tontine jigéen ñëpp ñu ngi dugg ci ay tontine dafa mu créé leen ay problème yu je yu dul jeex nañ ko fayal borom la des nag ah su boobaa yow jëkkër nag ñu doog a xool ni un quart ba yow yaay ki nga xam ne yaa ko moom loolu mooy miraasu jëkkër ci ci ci ci ci ci soxnaam naam léegi nag soxna si nag moom luy mbiram suñu borom mu ne soxna soosey su dee borom këram daa faatu ñoom dana leen ñeel un quart alal bi mooy bàyyi na quatre millions masalan un million bi soxna yi ñoo ko moom su dee na waa ji bàyyiwul la nga xam ne mooy doom doonte ne euh, li yàdd bàyyiwul doom dañu xam ne am na ñetti doom yoo xam ne nii duñu nekk di di donn ñaar ya moom euh, dëppoo nañ ci muy doomi njaaloo du donn doomi yéefar du donn amma nag ki rey baayam am na ñu bari dañ ne du donn am na nag ñu ne dana donn waaye diye ba la dul la dul donn waaw bu dee ne dafa juum bu dee daf ko tey moom du don loolu moom la chak ki rey baayam ñu xam ne moo ko tey moom du don bu dee ne nag teyu ko nag am nañu ne dana don donte du don diyee ba waaye bu dee doom doom bi ñuy wax mooy doom bu bokkul ak doomi njaaloo ak doomi yéeféer mi ngi noonu borom boobu subhan mu safaanoo nag ak jigéen ga jigéen moom même bu amee doomi njaaloo du tey doom boobu da koy don kon du tey jëkkër ji day jël la nga xam ne mooy kaaru alal bi su dee ne jëkkër ji am na doom ak kum ko mën a amal doom boobu mi ngay dund ah doomi julit la kon dañ naan soxna yi yéen au lieu de kaaru alal ji juróom ñetteelu alal ji ngeen di jël mooy la nga xam ne mooy sumun mooy sumun alal ji bàyyi ne huit millions un million bi moom la jigéen ñi moom benn soxna la bàyyi moo ko moom ñeent lañu ñoom ñoo koy séddoo seen diggante lii lépp nag bala ñu koo def nañ xool ndax waa ji bàyyiwul woon testament ndax bàyyiwul ay bor doonte ne ne bor ya la ñuy jëkk lijjanti bala ñoo lijjanti la nga xam ne mooy testament borom bi bàyyi loolu ñëw ci miraasu ay doomi ndey mooy benn waaye ngi nii faatu na bi muy faatu bàyyiwul ay waajur bàyyiwul ay doom benn soxnaa ngi nii bàyyiwul ay waajur bàyyiwul ay doom am na alal nu léegi nag luy mbiram loolee mbokk la ñuy tuddee kalaala ci lislaam dafa am ñaari wàll ñu koy doon li yàlla jëkk a wax fii mooy ñim bokkoon ndey kese ñim bokkoon ndey kese suñu borom mu ne bu dee kenn moo ca moo cay dund nañ xaaj alal ju juróom benn xaaj benn ba ñu jox ko góor laak jigéen bu dee ne ñaar lañu kon nañ jël alal ji naka noonu jox ki un sixième jox ki un sixième ko defee loolu nekk ceeru alal ji masalan juróom benn junni waa ji bàyyi na ko bàyyi na muudu ak faatu ñoom ñoo bokk ndey Moodu ak faatoo yem ci miraasu doomi ndey Moodu un million faatu un million mi ngi noonu erreur boobu nag day réeral ñu baree baree bari ñu bari dañoo jàpp ne miraasu doomi ndey comme ñoo yem ñu jàpp ne ki ndeyam dee góor ak jigéen ñoo yem ci miraas bi déedéet mbokk jullit suñuy wax doomi ndey mooy kan mooy yéen kii dee yéen a bokk ndey te moom bàyyiwul ay doom bàyyiwul ay waajur yéen ñooñu mu bokkoon day góor ak jigéen a yem ci miraas su dee ne kenn la moom moom un sixième ñaar jël beneen sixième muy ceeru alal ji su ngeen matee vingt it du ngeen passé ceer boobee mi ngi noonu mooy juróom benn junni kenn benn junni ñaar ñu jox ko benn junni bu doon fanweer lañu it ñaari junni yi lañu jël séddale leen ko mooy doomi ndey yi amma bu dee ñam bokkal ndey ak baay wala ñam bokkal baay ma ngay ñëw ca fin saar ba mi ngi noonu moom la borom bi subhanahu wa taala di wax foofee ne su dee dafa bàyyi koo xam ne nii da ngaa dee bàyyi sër fa laha nisfu ma tarak su boobaa ka nga bokkal ndey ak baay bu dee moo fa nekk wala nekk fa kam bokkal baay gennoo la alal ji sër baa koy jël wa huwa yarisuha in lam yakun lahu walad amma bu dee ne kim bokkal ndey ak baay mooy góor sëram gaañu moom alal jëpp lay jël kon lii mooy miraasu doomi ndey mooy ñi nga xam ne dañoo bokkal ndey kese borom boobu nag bi mu waxee lii ba pare mu ne xam leen lii day dénkaane la boo xam ne nii ah suñu borom yàlla moo ko digle wuruñu cee lor kenn te mooy yow mi dee waroo def testament boo xam ne da nga caa jublu lor ña nga xamee ne nii dañ lay doon looloo tax ba bokk na ci wàllu fiq ki nga xam ne ci feebaru deem la fase benn jabaram dee ci feebar boobee dañ naan jabar ji day doon yow mi nga xam ne tamit da ngaa yëg na sa bay bàyyi na ay bor yowaa gaawal fay bor yi yow mi nga xamee ni nii tamit yaay kilifa ak miraas gi gaawal ku ne nga jox ko ak xam te loolu lii problème surtout mooy ñi nga xam ne ñooy kilifa di taaw ya wala yoor yor miraas ba da ngay gis ba borom aq yi mën nañ cee topp ay ati ati at duñ leen ko jox loolu lor la te suñu borom mën a rëy mu door bu ñu lor kenn ku nekk lam yeeyoo nañ ko ko gaaw a jox borom boobu nag subhanahu wa taala ne ndénkaane la bu bawoo ci yàlla yàlla moom alalam yàlla leen dénk lii wax nañu sànq wallahu alimun hakim mooy xam lépp mooy xereñe te it mu ne wallahu alimul xalim yàlla mooy ki xam ci yàlla mooy ki lewet ay du gaaw a dal ci ay jaamam waaye gis nga bis bu la jàppee doo ko rëcc de gis ngeen su ko defee kon doomu aadama bi ku nekk war a góorgóorlu jéem a gaawee jëfe ndigali yàlla maadaama mi ngi lay muñal loole kon la suñu borom yàlla tënk ci wàllu miraas boobee incha allah comme nañ la ko waxee ca aaya ya mujj ci saar ba dana am lu mu ca complété kon ñu jox Cheikh Ousmane mu yeggaleel ñu incha allah
تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين barakallahu fikum kon suñu borom mu ne tilka hududullah loolu day moom mooy rëdd ya yàlla rëdd wa man yuti illaha wa rasula koo xam ne day daa topp yàlla topp yonentam yudxilhu jannat dana ko dugal ci jardin yoo xam ne nii day tajri min tahtiha al anhar ma ngay daw ca suufam lii di dex ya xaalidina fiha dana sax ba faw ca jardin yooyee wa dalika al fawzu al azim loolu day mooy texe bi gën a màgg ci texe yi wa man yaasi llaha wa rasula waaye koo xam ne daa mooy yàlla mooy yonenti yàlla wa yataadda huduuda jéggi la nga xam ne muy rëdd yi yàlla rëddoon yudxiluhu naara yàlla dana ko tabbal sawara xaalidan fiiha mu sax fa ba faw walahu azaabu muhin te dana ko ñeel mbugal moo xam ne mu koy toroxal la ni ngi noonu mbokk suñu borom dane lii mooy li yàlla subhanahu wa taala rëdd ne jaam yi jaar leen fii ci topp yàlla ak yonentam àjjana moo koy xaar mu lay jàngalit ne mbokk diine mooy la nga xam ne moom la yàlla wax ci téeréem ak la yonent yàlla wax ci sunnaam looloo tax ba boo demoon fa ñuy jàngale miraas atte ya ca ëpp ci sunna la rot mi ngi noonu su ko defee kon foofu la ñuy delloo la ëpp ci atte yi bokkoon na lu ñu sunna doon jàngal yonente bi alayhi salaam mu ne inna allaha qad ata kulla zi xaqin xaqa fala wasiya lil waris ku ne yàlla jox na ko cëram testament boobu ñuy wax aji donn ji bokku ci amoo droit ne suma dee sama bàyyi na jël nangam wala sama doom na jël nangam wala sama soxna na jël nan nangam maa daama yàlla jox na ko cër ba pare amoo droit di jël beneen cër di ko dolleel ci cër boobee amaa nag koo xam ne du la donn ku mel noonu moom lu la neex nga may ko te la nga xam ne mooy sa alal borom boobu it dañuy xemmim loo alalu adduna ji bañ ñoo féewali alalu adduna ji bañ ñoo dural merum yàlla mu ne iwaay xam na woon li ne ki topp yàlla ak yonent yàlla te bokk na topp yàlla ak yonent yàlla xam ne miraas bi yàlla bëgg ñu doxale ko nii nee na day li lay xaar mooy ajjana joo xam ne dex yaa ngay daw ci suuf wallahi bu doon dangaa njuuj njaaj miraas bi mboolem immeuble Dakar yi nga moom ko fooy mu jég moom te balaa yàgg de bàyyi ko fee waay amma boo defee li neex yàlla jalla wa ala mu ne maa ngi lay waajal àjjana yoo xam ni dex yaa ngay daw ci suuf te loolu mooy texe bi gën a màgg ci texe yi te loolu nga la waay ndaw yi ngeen yóbbaale ko xamal ne texe dëgg-dëgg mooy fexe ba dee tabbi aljanna mi ngi noonu lépp loo xam ne nit ñaa ngi koy dàq ci ay diplôme di ko dàq ci ak pal di ko dàq ci alal ngalawaay xam leen ne loolu jëkkante la ci ak cànkute rek waaye doomu aadama bi la mu war a teg ci bëtam mooy la sahabatul kiram doon bàkkoo allah wal janna ngërëmal yàlla ak day tabbi aljanna yàlla na yàlla yombal ko ci ñun borom bi nee ne lii rek mooy texe bi gën a màgg ci texe yi amma nag ci nga xam ne daa mooy yàlla mooy yonent yàlla te bokk na miraas bi yàlla nee ne defe leen ko nii yonent yàlla nee ne defe leen ko nii yow nga topp sa bànneexu bopp jig ji dayoo ca la yàlla subhanahu wa taala rëddoon imma ka nga waroon a jox akam joxoo ko ko wala nga jël loo xam ne yoyowoo ko suñu borom mu ne sawara moo lay xaar sawara moo lay xaar te soo ñëwee da ngay gis ni borom bi mu ne xaalidan fiha bokk na lu borom xam-xam yi di wax lu tax suñu borom wax xaalidina fiha ci waa ajjana na ñoom dañu fay sax ba faw waa kii dugg sawara mu ne moom dafay sax ba faw ñu ne na am waa ajjana dañuy ànd nekk ay doomi ndey jàkkaarloo yàlla boole leen benn xol ñuy dund seen bànneex amma sawara képp kenn ci ñoom ruq ba ko yàlla dugal di ko mbugal day jàpp ne moom dong moo nekk sawara gis ngeen ci ay étapes yu muy jaar su ko defee amul kenn ku koy dimbali amul kenn ku koy yërëm amul kenn ku koy xettali moo tax mu ne mu ne xaalidan fiha ba pare it borom bi jàlla wa ala ni walahu azabun muhin dana ko ñeel mbugal moo xam ne mu koy toroxal la te it mbokk julit xam leen ne bëggalum sawara yal na yàlla musal ñu ci daa boole ñaar metti lool nekk toroxtaange lool amul kuy dugg sawara lu dul yàlla dina la toroxal ci kanamu mboolem ñi nga xam ne waa adduna ña la xam ak ña la xamul gàcce gu rëy dal la ñu dog laa dugal fa nga xam ne fan la yóbbu mbugal ma gën a nekk mbugalu toroxtaange moom ngay nekke ba faw lii mbokk kon mooy tënk bi nga xam ne tënk nañ ko ci masala bi nga xam ne mooy masala miras bi nga xamee ne nii ñi ngi ñaan borom bi jalla wa ala yal nañu yàlla wërsëgal lépp loo xamee ne nii day dugg ci suñuy loxo yal na doon gërëmal yàlla ñu teg ko fa nga xam ne moom moo neex yàlla mboolem ñi faatu ci ñun yal na yàlla jéggal leen ci yàlla yërëm leen yàlla wërsëgal ñu njaboot goo xam ne ñooy wuutu wuutu gu rafet suñu gannaaw wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain koo xam ne nee na bi muy faatu daa yoral ay doomam bor waaw bor yooyu bala ñu ko miraas dañuy génne boru doom ya ba pare doog a miraas la nga xam ne mooy la des su dee ne lam bàyyi ci ci ci alal da ngay gis ne daa yem ca bor ya dañ ko yemale ca bor ya su dee matul bor ya di bu deeyee bu bàyyee bor doom ya ko war a fay kon la fa des moom la boo moom la doom yi di jël ala kulli xaal nañu xam ne bor moom koo ko mën a yoral mooy bala ñoo commencé miraas fokk dañuy fay bor yi ba pare doog a wax miraasu kenn ku mën a doon ci njaboot gi wallahu subhanahu wa taala aalam naam mu ne bor waaw waaw ala kulli xaal loolu moom loolu moom beneen bi laala kulli xaal xam nga réew réew léeg-léeg réew day am culture ñun suñu culture mooy léeg-léeg da ngay dégg ñu naan bor du rey kenn naam bor du rey kenn mais dana alak kenn su ko defee daal ci gàttal ñu bàyyi xel loolu ni ma ko waxee it surtout maa ngi gën a ñaax lool lool lool suma mbokki intellectuels yi wallahi sunu maam yi nekk daan am ay bor ñu néew lañ doon mais tey jàpp nañ ne ko amul bor yow bokkoo boo demoon dëkk yu mel ne États-Unis bon ñoom ay yéeféer moo ci ëpp ñoom dañ naan ñoom ñëpp ils vivent à crédit ñoom ñëpp ils vivent à crédit yaa ngi dégg li nga war a liggéey cinq ans yëpp lépp nga ko mais julli du dugg ci loolu xamoo fay dee te wóorul ndax boo dee da nga bàyyi lu ko fayam dee mi ngi noonu waaw bismillah mbokk bi waaw naam ndax ñi nga xam ne seen waajur dafa faatu bàyyi leen tool tool ak kër ak lu mu mën a doon ndax ñoom bu ñu dëppoo ci ne nañ ko bàyyi ba ci kanam ñu doog koo séddoo ngir am na valeur wala bokk ñun dañoo aajowoo dëkkoo kër gi wala société bi dañoo aajoo bàyyi ko nii islam du ci wax dara islam daal li muy li muy li muy bañ mooy ak juyoo bu dee kenn dafa taxaw nañ ma jox sama alal dañ ko war a jox alalam amma ñoom ñëpp buñ dëppoo kër gi kat suñu kër bàyyi la jaay ko du suñu intérêt nañ ko dëkkee looloo gën ci ñun société bi kat buñ ko tasee di ko jaay du suñu intérêt dañ ko bàyyi li ko bàyyi bàyyee woon lu ci juddoo ñu séddoo magasin yi lu ci location ñu séddoo tant que ñi ngi juboo islam du wax ci loolu dara amma bu demee nag ku féttéeroo taxaw ne jox leen ma sama aq moom dañ koy war a jox aqam imma ngeen cotiser jox ko aqam su dee mënuñu ko jox aqam fokk ñu jaay la bàyyi bàyyi jox ko aqam wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam léegi ki laa laaj moom day ñëw ci kanam wala wax da surtout xaalis fan lay
waaw loolu laa la wax de ñun dañuy dañuy dañuy junj rek dañuy miraas kii bi nii dañ koy junj mais incha allah dar si fiq yi moom mooy leeral de surtout xaalis yi fi muy dugg waaye xaalis moom dara du ci takk lépp rek am na fu ko yàlla dugal incha allah waaw bisimilah naam naam waaw loolu day borom xam-xam yi dañ ci am juyoo ndax xaalisu jërim dañ ciy génne zakat bokk na li ci gën a not naam dañ koy génne zakat parce que dañ ne zakat àq la bu fuqaraaw yi am ci alal ji yeneen bi da noon moise boo demee jëlal ci ñi am ci ñoom ñu jël seen àq jox ko ñu ñàkk loolu nag ñi am ci ñoom dañuy gis ne tënkuñu ko ci majeur mooy daal la ëpp ci borom xam-xam yi li ñuy wax mooy yatim su dee alal jaka bàyyam bàyyee dafa mat nisaab chaque année dañ ko war a génne zakat looloo tax am na ay yenn xadis yoo xam ne am na ñu ko wéral mooy ba Omar di wax ne ki yor alalu jirim na ko ci commercial bala koo zakat di lekk looloo tax boo yoree alalu jirim imma nga commercial ko ci wala nga dugal ko ci lu amul zakat masalan bàyyi bàyyi na ko 10 millions nga dem jëndal ko ci benn terrain terrain boobu chaque année day gën a day gën a màgg amma bu dee xaalis liquide bi nga fa bàyyi loolee chaque année da nga ko war a génnal zakat te la ëpp ci la borom xam-xam yi wax wallahu subhanahu wa taala aalam naam bismillah ki fàtte bor képp koo xamee ne nii bi ngay leb bor yaa ngi yéene ne da nga ko fay yaa ngi yéene ne da nga ko fay bor boobee tant que yaa ngi dund yaa ngi def effort pour fay ko def effort pour fay ko yàlla dugul fayoo ko yéene ba rafet boobu yàlla dana la ko fayal loolee bokk na ci fàtte goo xam ne fàtte nga ko waaye nag waroo koo fàtte sëñ bi yaa ngi dégg ala kulli xaal looloo tax ba doomu aadama bi di war a góorgóorlu di bind rawatina bor yi nga gàdd nga koy bind yonent bi sallallahu alayhi wasallam danañ wax naan kenn ci yéen ku am ay responsabilité da doon dafa leb alali jàmbur wala am dénkaane jàmbur wala yor ay kees wala lu mu mën a doon ngal la waay nay fexe bu mu sàggan mu ko ñaari fan yoo xam ne ah ndénkaanim yëpp bind na ko ñu xam ko waaye daal la chaque ne képp koo xam ne nii ragal nga sa diggante ak sa borom bor ba caaxaan taxul woon nga def ko def nga sa kéemtalaay kattan pour fay ko boo dee imma yàlla boole la jàmm bu la ko fayal ndax kiñ doon nettali xadis sànq ay mbokkam fayaluñ ko ko abi xataa doo am saari ma ko fayal bu loolu lépp amul it yàlla ci mbaaxam dana la ko fayal yowm alqiyaama loolu la yonente bi alayhi salatu wasalaam wax wallahu subhanahu wa taala aalam naam bismillah ñii dëppoo famille bi dëppoo dem pour tribunal atte leen bu dee tribunalu Sénégal du du dagan mu ngi noonu bu doon tribunalu Sénégal du dagan waaw lo- très bien waaw waaw waaw en général te comme ni mu waxee it néew na ñu dëppoo ci parce que foo ko fekk rek ci ray ma moo am ba ñuy dem tribunal yaa ngi dégg te bu ko defee it maadaama suñu borom nee na ki jéggi ndigali yàlla tooñ na boppam quatre-vingt-dix pour cent ñu yëbbu seen mirage tribunal ay jooy lañ fa jëlee amuñu ci benn intérêt yaakaar naa ne am na mbokk yu toog maa ngi toog ak i maître ma soxna kan yi ñëpp xam ngeen ko benn daje buñ dajee fii yàggul dara muy wax naan ku ma déggal day sa affaire yi mirage doo ko yóbbu tribunal wax naa sama njaboot bu ma dee samay mirage bu ñu ko yóbbu mukk tribunal mu ne man ba may ba may assermenté en tant que avocat ëpp na trente ans am na dossier tribunal am na dossier kër yoo fa nekk ba léegi su ko defee kon loolu daal ci gàttal ñëpp ñoo xam ne wóor na le ne soo leen yóbbulee dossier bi duñ ko attee na ko yàlla subhanahu wa taala tërale amoo droit di ko fa yóbbu amaa nag bu dee yow say doomu baay wala say frère yi nga bokkal ñoom ñoo imposé dossier bi yóbbu la fa amoo ci pexe loolu moom da ngay xam ne amoo ci pexe waaye daal képp ku am pexe sa dossier miraas waroo ko yóbbu suñu tribunal yi loolu it la ma ciy tëje rek ñu bàyyi xel ne wax dëgg yàlla am na ay association yoo xam ne ñoo ngi nekkoon ay aéroport defoon ay jéego yu mag bind benn téere boo xam ne nii maa ngi ko yor ba léegi sax ñu bëri yor nañ ko pour la nga xamee ne nii wàllu miraas yi wàllu sëy yi état bi nañ ñuy dimbali même bu ñu dugal ci camp pénal di dóor a koy yar ñu fexe ba may ñu loi yooyu ñu dëppale ko ak l'islam sëriñ su bari si nekk fii signé nañ ko sëriñ su bari si fi nekkoon signé nañ ko waaye président bi fi nekkoon mañ ko yóbbum laa ñii dañ maa yëpp gis ngeen lu tax waxuñu ko ñu jiitu ala kulli xaal ci gàttal mbokk daal ñoo xam ne suñu borom yàlla nee na lii mooy samay rëdd képp ko topp sama ndigal danaa la gërëm àdduna tabbal la aljanna képp ku jéggi samay ndigal danaa la tabbal sawara te loolu mooy bu la yàlla subhanahu wa taala jéggalul te it loolu la ñuy jeexale mbokk jurit nañu xam ne def ay sabab pour dem àjjana sabab la yàllay dugal àjjana na ku ko neex ci ngëneelam loolee moom mooy mbiri yàlla la waaye da ngaa war a sabab lu pour dem àjjana am na it ku ko def safara nga jëm firiwul nañ ne dañoo gis masamba def na ko safara la jëm def na sabab bu ko yóbbu sawara léegi nag yàlla xam ndax du koy jéggalam du ko jéggal yàlla na yàlla jéggal ñu fi dunya wal axira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain